asalaamaaleykum wa rahmatullah waa sama samadiyya maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam di ñaan sama kàddu fekk leen ci jàmm niñ ko baaxoo defee actualité politique incha allah lañuy ñuy waxtaani ndax danoo toll ci waxtoom lii ñuy waxtaani nii xam ngeen ni danoo toll ci waxtu politique amaana am na sax jataay buñ fi defoon waaye fi mu toll nii nag lees ko gën a yittewoo ay bis gi ñu gis nañ ay kilifa yu bari yu ci génn wax ci ñu amoon nag suñu mbokkum ba di sunu sëriñ di boroom xam-xam di kenn ci biir ëtt bi muy sëriñ Souhaïbou Mbacké Ruy diis mu sàkk woon ci moom nag ngir mu dikk euh, defal ñu ci euh, ay jàngat ci fi réew mi toll actualité politik bi diggante diine nu mu gisee politique kilifa gi nga xam ne kilifa diine la nan la war a politique ak jàngat ci yi kon ñu teew du teewlu Serigne Souhaïbou Mbacké Ridis mu def ci exposé ay jàngat defal ñu ci ak ubbee bu noppee nag danañ ubbi ligne bi ndax boroom xam-xam yu bari ñu ngi ci biir te yëf yët yitteel leen ñu xam ne moom lañuy ñuy waxtaane tey incha allahu ba tàkkusaan loolu la ñu fas yéene kon Serigne bu ñu ngi lay sant bu baax ci invitation bi ñu ñu ko nangule tañ fekk la ci ay yitte waaye nag lépp loo xam ne day liggéeyal diine moom xam nga yow li ci sa rôle ba fu mu jóge rek nga xam ne ci sab tool la kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la wax bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Sëriñ maa ngi lay nuyu di nuyu mbooleem ñu nekk ci groupe bi la Samadiyya di jëtal ci nuyoo bi sunu sëriñ Cheikh Abdou Samad nuyu sunu kilifa yu baax yu tedd yi fi nekk ak sunu aima yu baax yu tedd yi fi nekk te kenn ci ñoom ngi indi ab vidéo muy sëriñ Mbacké Abdourahmane mu ciy wax lu am solo lool rawatina lu jëm ci wàllu politique ak fii jamono toll ak wallu yar ak fii jamono toll ak ni ñu war taawoo ndaw ñi yittewoo leen ba li fëkk du leen fëkk kon mu am solo lool bu jamono melee nii ñu wax def ay waxtaan yu mel nii ngir ñu mën koo jariñoo ñoo ngi lay sante bu baax ci xalaat bi xalaat bu rafet bi nga am ba gis ne war nañ cee waxtaan di sant tamit sëriñ bi Cheikh Abdou Samad ci yittewoo gi nga xamee ne yittewoo na ko lépp lu jëm ci mbirum jullit ñi ak lépp lu jëm ci réew mi te loolu mu cay jëfandikoo rek xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man lam yaxtam bi amril muslimina fa laysa minhum kon ñoo ngi koy sant moom bu baax comme ni ñu ko xamee nag muy diine ji di lislaam dafa lëkkaloo ak politique lëkkaloo goo xam ne mënuñoo taqalikoo ku ne xam ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ni mu nekkee woon imaam bu daan jiite jullit ñi ca jàkka ja naka noonu noonu la nekkee woon chef de guerre noonu tamit la nekkee woon koo xam ne moo daan ratifié euh, accord de paix yi maanaam bu ñu waraan a signé jàmm diggante jullit ñi ak yéefar yi moo ko daan signé wala bokk ci turam dañ ko daan signé yooyu yëpp ne dafay dugg ci wàllu politique kon diine ji moom dafa ànd ak sëriñ si nga xamee ne dañoo donn yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñoom it mosuñoo bàyyi loolu di politique ndax xam guñ xam ne diine mënta jàkk na ma war a jagee bu fekkee ne amul ab sultaan sultaan mooy amul buur buur boo xam ne buur boobee mooy saytu attey diine ak di saytu attey àdduna atte ya nga xamee ne buur a ko mën a def atte yooyu buur di ko def ba tax loolu moo loolu moo waraloon sayiduna Usmaan di xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di goroom waxoon ne yàlla dana yëwénal ci buur loo xam ne nii du ko yëwénal ci alquran maanaam yàlla dana jaare ci buur defar mbir moo xam ne jaaree wu ko ci alquran defar ga inna allaha yazau bi sultaan ma la yazau bil kon loolu dafay wane dayo ba am solo boo xam ne nguurug adduna am na ko politique it am na ko kon nag gannaaw ba nga xamee ne xam nañu loolu ñu nekk nag ki jamono boo xam ne dañoo jëm ci ay élection élection yoo xam ne dañ ciy tànn ay ay député député nag rôle bi nga xamee ne moom la war a mooy nekkal fa askan wi askan wi nga xamee ne ñoo ko fi teg moo ko wateel mu nekkal leen fa luwaa yi nga xamee ni moom mooy ñëw mu di ko xool di ko càmbar la nga xamee gis na ni dëppoo na ak njëriñul askan wi mu wote ko la nga xamee ni gis na ne dëppawul ak njëriñu askan wi mu bañ ko vote loolu mooy njëriñul député ñoom nag ci suñu réew mii ñu nekk muy Sénégal ñu am ci pouvoir ñu am pouvoir ci réew mii ñu ne ndax ni ñu ko xamee réew mi ni ñu ko tëralee ci wàllu doxaliinu àdduna ñetti pouvoir moo fi am pouvoir boo xam ne ki jiite réew mi moo ko moo ko amee ngi tuddee le pouvoir exécutif muy asulta tanfidiya ak pouvoir boo xam ñoom député yooyu ñuy bëgg a fal gannaaw gannaaw suba ñoom ñoo ko amee muy dañu tuddee le pouvoir législatif muy asulta tashriiya ak beneen pouvoir boo xam ne ñi nga xam ne ñooy àtte ak procureur yi ñoo ko amee muy ñu tuddee le pouvoir judiciaire muy asulta al qadaiya kon nag ñoom ñooñu nga xam ne dañoo war a nekk ay député nga xam ne buñ ñu nekk ay député dañu am benn pouvoir kon ñu war leen votel votel googu ñu leen war a votel war na koo xool da jàngat ko mooy dañ fay yóbbu ñu xam leen xam ne ñii kat bi fa demee danañ fa nekkal diine danañ fa nekkal askan mi euh, gannaaw nag ba loolu wëyee ku ne xam na ne réew mii di Sénégal dafa ame ay xasaayis maanaam dafa amee euh, dafa ame yum jagoo yoo xam ne yu gën a bëri ci réew yi adduna bi jagoo wuñ ko te bokk na ci yooyu mu jagoo rek lu mel ne dëkk bi te Touba ne ci ne ci biir réew mi te Touba am nu mu bindoo ci wàllu diine am nu bindoo ci wàllu adduna te nag fan yi ñun ñëpp teg nañu bët lafay xew ci wàllu politique ak lafay xew te lu bari politique waral ko su boobaa nag dafay war euh, ñu xalaat ci waxtaan ci ba yàqu-yàqu ban ci am gis nañu ay kilifa yu baax yu tedd yoo xam ne nii yëkkati nañ ci seen kàddu mën nañ cee tudd sëriñ Mbacke Abdourahman mii nga xam ne moom lañ dugal fi ab vidéo am léegi mën nañ cee tudd ku ne sëriñ Sidi Makhtar moom Cheikh Abdoul Qadir bi sëriñ Euh, démb tamit gis naa beneen communique boo xam ne mi ngi bàyyi ko ci xuddaamul xadim bu sëriñ Hamzatu moom Cheikh Abdul Ahad ak yeneen yoo xam ne xëy na gisuma ko ñu ñëpp lañuy ñuy woote rek mooy ne dëkk bi ni mu bindoo am na loo xam ne waru fee am am na loo xam ne sëñ su ko fay def euh, malheureusement nag loolu nga xam ne jàpp nañ ne waru fee am. ak loolu nga xam ne jàpp nañ ne sëñ su ko fay def am nañu ko fi def loole nag dafay aajo ñu situer les responsabilités bu ñu situer les responsabilités euh, ba tax bu ëllëgee lu mel noonu bañ a amaat euh, bu ñu mosaan a gis sëriñ bi di aayi politique moo tàmbalee woon ca Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Saalihu ñëw feddaliwaat ko yàlla yàlla yokk leen ngërëm Cheikh Mouhamadul Mountakha ñëw fedd liwaat ko yal na yàlla yokk ko wér ak fan wu gudd loolee parce que ni ñu koy defee moo ñaaw ñu jégal ma ci baat bi ni ñu koy defee moo ñaaw te Touba nag lu ñaaw amu fa wàll ndax loo xam ne nañu koy defee dafay daggug mbokk loo xam ne nañu koy defee dafay jibal ay kàddu yu ñaaw jëme ci ay mbokk loo xam ne dañ koy defee dafay indi ak yàqu-yàqu ci wàllu diine ak ci wàllu jikko loole képp koo xam ne nekkal nga fi Cheikhul Khadim mënoo koo mënoo ko nangu mënoo koo questionné loo waral ñoom ñu aaye woon politique ci dëkk ba waaye bu dee politique bu nga xamee ne ñoom lislaam digla ne ko te ànd ca ñoom dañoo mas di ko def dañoo mas di ko def ku xam histoire réew mi avant indépendance ba fi ñu toll ku ne xam ne ne ñi fi nekkoon ci ay sëriñ ay rôle yu am solo la ñu joué mën nañ ko tàmbali ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Blaise Diagne jaar ci Cheikh Mouhamadul Fadil ak Senghor jaar ci Cheikh Abdul Ahad ak Abdou Diouf jaar ci Serigne Saliou ak Abdoulaye Wade ba fii ñu toll tey kon ñoom xam nañ nañ daan defee politique daanañ ko def ci façon boo xam ne njëriñal diine képp ma ci daan am mais nag bu ñu demee léegi nag ba buñ koy def tey dagg bokk da ca am ay kaddu yu ñaaw di ca am su boobaa ñoom buñ ko aayee war nañ ko aayee te nag ñañ ko aayee tamit war nañu dégg aaye googu ñu bakko nga xam ne dëkk bii dafa am nu mu bindoo am nu mu mel yëmut yeneen dëkk yi Euh, dañuy faral tamit di sedd lu bare bari mbir moo xam ne dañ koy bañ ca Touba te dafa mel ne dafa am ñu ko nangul am ñu ko bañal tey loolu bokkul ci ak maandu bokkul tamit ci jikko ju rafet ndaxte mbir buñ ko bañalee euh, ñii dañ ko war a bañal ña ca des waaye bañal ko ñi nangul ko ñii loole lay sa min al adala bokkul ci maandu te loolu mën naa bokk ci liy indi frustré ay nit ñu frustré ay ñu mer ak ay nit ñu gàpp ne lii yoon dafay amul te fekk na yoo sax ña koy def ak ñañ koy nangul ñooñee amuñ ci ndigalul xalifa bi maanaam xalifa bi nga xamee ne moom mooy kenn kenn koo xam ne moom la moom la baatam euh, nekk ci kaw baat yëpp am na ci yoo xam ne ni du ko yëg waaye ay nit ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ne am nañu dayo jàpp nañ ne am nañu taxawaay seen taxawaay boobu ak seen dayu boobu dalee ni may ñuy abusé wu di def loo xam ne àndut ak li sëñ bi bëgg ci dëkk bi ba noppi ko ñeneen bëggoon a def ñu ne sëñ bi day aaye politique ci dëkk bi loolu yëpp bokkul ci màndu euh, ba tax na kon euh, yu mel noonu bu amee ñi nga xamee ne ñooy gis ak di seetaan lu ci bëri ñoom ñooy attal seen bopp ñaari doo gis koo def am ca parce que murid yi Cheikhul Khadim moo def ci seen xol yi bëgg Touba ak bëgg war mooy Touba képp ko def lu safaanoo ak loola rek laa nga def donte yow dafa am loo ci doon wut la nga ci doo ko am murid murid yi seen bopp ñoo lay meral seen bopp te sax doo xam doo xam lu tax ñu mere la kon yooyu yu mat moytu la euh, kon ba ci toppaat te muy bu am solo lool muy Euh, tuubaa gi nga xam ne ñun fa la ñu dëkk te mu am dajal lool ci falak folli ba tax way politique yi jublu ko ni ñu ko jubloo Touba googu nag di dëkkub diine kon ña dëkk ñépp diine mooy leen cuub kon nag ba ñuy politique ñoom war nañoo politique ak diine foofu kon damay ñëw ci li sëriñ Mbacke Abdourahmane doon wax léegi mooy képp ku dëkk Touba di politique yow la la tax di politique mooy diini ak ngor ak ay valeur la Sëriñ Tuubaa doon xeex ba tax ñu exilé ko Gabon ak yi la Sëriñ Tuubaa doon xeex ba ñu def ko résidence surveillée ca yéen ak Jurbel su boobaa ku dëkk Tuubaa ku loolu moo war a nekk sa combat mooy ngor ak diine ak ay valeur mais sa combat wërta nekk naa neen lu bokkut ak loola kon dafa gàccewu lool dafa gàccewu lool ngir ki dëkk Touba ba noppi di politique te politique boobu muy politique jiitalu ci diine jiitalu ca valeur yi nga xamee ni ci la Cheikhul Xadim doon woote woo jiitalu ca valeur yi nga xamee ni ñi ko wuutu woon di ay xalifaam loolu lañ doon saxal ak di ko doxal loolu lu gàcce wala lool ci képp ku dëkk Touba ak fu mu mën a far rek ci wàllu politique dafa gàccewu ca moom léegi nag dem nañu ba seetlu ne ñi nekk Touba di politique ñu ci gën a bari ñu gën a bari duñ wax duñ wax ñëpp ndaxte xëy na am na ñoo xam ne li ci dugal ay valeur la am na ñoo xam ne xëy na li ci dugal diine la ci gën a bari euh, néewaa na ñuy défendre diine ci seeni discours néewaa na ñuy défendre ak ñi ko ni ko Serigne Touba fonde ak ni ñu ko tëggee ci seen i doxalin ak seen politique yooyu nag moo xam ñu féete ci pouvoir bi la moo xam ñu féete ci opposition bi la kenn ku nekk rek yow la nga kaa ngay défendre mooy sa leader mooy sa mentor ci wàllu politique ka la jiit ci wàllu politique rek moom ngay défendre waaye di défendre Touba ak intérêt yi Touba défendre diine ak intérêt yi diine loolu néewaanu la muy am daanaka sax mën nañoo wax ni ñi nga xamee ne ñooy défendre diine. ak di défendre Touba ak ay valeur am ñoo ñooñu defuñu politique euh, mën nañ cee tudd ku mel ne Cheikh Abdou Samad gis nañ ko ba tàyyi muy défendre Daara muy défendre Daara ak di défendre Serigne Daara ko défendre Daara défendre Serigne Daara kooku yow génne nga défendre te moom deful politique kon doon na yey te doon na war ci ñi nga xamee ne ñooy def politique te dëkk Touba. seeni discours daara ak doomi daara yi da ca feeñ bu baax a baax Touba ak intérêt yi Touba di ci feeñ bu baax a baax waaye nag ñu bañ a mel ni ña dëkk ña dëkk dëkk ña dëkk Ndar tuuñu ma waa Ndar nag baña mel ni ña dëkk Kolda tuuñu ma waa Kolda waaye ndaxte Touba ak Ndar bokkuñu tuuba ak Kolda bokkuñu kon ki ñu tabb mu nekk ca Touba. dafa def politique kookee war na ci moom war na ci moom obligation la ci moom muy défendre daara ak doomi daara muy défendre Touba ak waa Touba te di ko teg ci xam-xam bu leer ak ay principe yu leer te bañ a nekk koo xam ne nii rek moom fu jëm bu jëm fa donte sax fu leaderam jëm loolu arrangé wul daara arrangé wul diine arrangé wul valeur yi nga xamee ni moom la Cheikhul Xadim sëncee woon dëkk bi te dañoo dem léegi ba seetlu ne. ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci kuréelu politique yooyu euh, am na ci ñoom am na ci ñoom du ma ne ñëpp mais am na ci ñoom ñoo xam ne seeni mantoor mooy seeni leader ci wàllu politique ñoo leen gënal sax dëkk bi ñoo leen gënal sax waa dëkk bi da ngay gis koo xam ne ab leader am da koy mën a layal lay wone la koy jël di ko jox te lay yooyu mooy jël di ko ko jox du ko defal xalifa bi du ko defal Cheikhul Khadim suñ ko attaqué woon te bis bu set ay noon di attaqué sëriñ bi ci loo xam ne nii du dëgg te ñooñu doo ci dëgg mukk seen kàddu te bu ñu attaqué woon seen mantoor ngay dégg nga gis ñu taxaw xaamat xiyaamatuhum walam taquun li arab yi di wax nga gis ñoom ñu taxaw seen farfarra yi taxaw ñu leen ñu di ko wax te bu ñu attaqué woon Sëriñ Tuubaa tey doo leen dégg bu ñu attaqué woon Cheikh Mamadou Mountakha doo leen dégg waaye bu ñu attaqué woon seen leader nga dégg leen ñu di ko défendre façon bu mën a doon am na ki sax ñoo xam ne Euh, ñañu bokkal parti ñooñee léeg-léeg ñu yëkkati kaddu goo xam ne gu demewul noonu la jëmale ko Touba wala jëmale ko waa Touba waaye dañuy gis ci ñooñe ñoo xam ne dañuy jóg di défendre ñooñee buñ leen waxee ñaan affaire bi affaire politique la dafa am nag sama benn xarit bu baax boo xam ne ku pësteefu la ci wàllu politik ku actif la ci tamit waaye ku xàmmee la moom dafay wax ne man Serigne Touba moom laa teg ci kaw république bi moom Serigne Touba ba noppi république bi dor cee topp kon ñun ñi dëkk Touba ak ñun murid yi pas-pas boobu lañ war am mooy Serigne Touba ci kaw république bi dor cee topp waaye am na loo xam ne nii euh, jaaduwul ci taalibe murid rawatina nag koy def politique te dëkk Touba ngay taxawee taxawin yu mel noonu kon danga nga xamee ne moom lay tëjee su ko bàyyi Euh, sëriñ bu ubbi groupe bi waxtaan ci débattre ci mooy ne ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay murit te dëkk fii ci réew mi ñun dafa am lu ñu téye ci réew mi loo xam ne mënuñ ko fee bàyyi dem muy Seexul Xadim ak lu mën a xew ñun Sëriñ Tuubaa duñ ko bàyyi dem faw ñu dëkk ak moom kon ñun ñooñu nga xam ne dañoo war a dëkk Seexul Xadim waruñoo bàyyi réew mi di yàqu yàqu-yàqu boobu nag fu mu mën a jógee rek dañ ko war a combattre moo xam ci pouvoir moo xam ci opposition la fu mu mën a bàyyi ko rek ñun murid yi nga xam ne mënuñ fee bàyyi Serigne Touba di dem dañoo war a taxaw temm ci xeex loolee. la jot a ñu xam ne li ñu woyee démocratie te mooy askan wi tànnal boppam njiitam loolee lu dëppoo la ak lislaam lu dëppoo la ak lislaam lu dëppoo ak valeur yi lislaam yonente bi. alayhi salaatu wasalaam dafa jàngale ne ñi gën ci seeni seeni njiit mooy ña nga xamee ni bëgg ngeen leen ñoom it ñu bëgg leen ngeen leen di ñaanal ñu leen di ñaanal loolu dafay wane ne kon njiit li nga xam ne bëgguñu ko njiit loolee euh, l'islam gërëmu ko kon démocratie lu ànd la ak diine la ca toppaat ñu war koo xam tamit mooy ne lislaam ñu ko yàlla tëralee dafa am ay yu bëree bëri ci mbiri àdduna yoo xam ne da koy bàyyi ak jamono ak da koy bàyyi ak nit ñi ñu di ca xalaat buñ ca xalaatee indi loo xam ne dañ koy tënk mu mën a tënk nit ñi waaye nag day dëppoo ak loolu tamit ba tey lislaam ànd na ci comme li ñu waxoon ne al muslimuna ala shurutihim kon yooyu yëpp dafay wane ne kon am na ci réew mi nu ñu doxalee noo xam ne lislaam mën na caa ànd euh, kon daal loolu laa ci bëggoon a indi ci tàmbali su ko defee di xaar intervenant yi ñu ñëw léegi nag ñu mën cee waxtaan gën cee xootel di santaan ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu